الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di sant kenn ku nekk ci yéen nuyoo bi nag ñu ngi ciy jiital yàlla sunu borom moom mi ñu barkeel baaxe ñu ba ñu mën fee teewaat tey ci suba si ngir wéyale ak yéen suñu waxtaan yooyu ñu dippee émission kàddu gu sell gi man seen mbokk seen xarit seen doomu ndey pasteur Balla Konaté ma dellu si waat tey jii ngir waxtaan ak yéen ci lu jëm ci kàddu yàlla sunu borom di téere bu sell bi ñu gën ko xamee ci turu bible bi mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla sunu borom sant suñuy ñaari waajur gërëm leen yéen it ci déglu bi ñu ngi ñaan yàlla wàccee jàmm ak yiwam ci réew mi nga xam ne mooy suñu mbos di Sénégal ñu ngi ñaan yaa jàmmuk yàlla yërmandeem ak yiwam di gindi kenn ku nekk ci ñun ngir euh, dë- dëkkin bi mën a rafet àndandoo yi mën a rafet te tabaari fakal yàlla di ci bég saa su ne tey ji nag yéen mbokk yi may déglu dafa am waxtaan boo xam ne moom laa bëgg a tàmbali ak yéen jë te ma dippee ko nag li am solo ci kanamu yàlla ndaxte xam ngeen ni dañu nekk ci àddina si te àddina si it daf ci am yoo xam ni gis ci gis-gisu doomu aadama yu am solo la waaye li ñu war a xool mooy ndax gis-gis boobu méngoo na ak bu yàlla sunu borom dañu war a xool ndax li am solo ci àddina si maanaam àddina si buy wax ni diw tekki na àddina si buy wax ni diw am na àddina si buy wax ni diw ku ñu war a wormaal la ku ñu war a sargal la ku ñu war a jox cër la ndaxte méngoo na ak li yàlla di woowee tekki ndax méngoo na ak li yàlla di woowee worma ndax méngoo na ak li yàlla di woowee cër ngir loolu dama bëgg ñu ànd di xool ci téere bu sell bi bëgg naa leen jàngal ay aaya yoo xam ne maa ngi ko jëglee ci te injilu Luk maa ngi ko jëlee ci injilu Luk saar fukk ak juróom benn ba la ko dalee ci aaya fukk ak ñeent ba fukk ak juróom lii la téere bu sell bi wax ci aaya yooyu mu ne pharisien yi déglu li yeesu doon wax lépp tàmbali di ko reetaan ndaxte ñu bëggoon xaalis lañu waaye yeesu ne leen yéen yéen a ngi fexe jub ci kanamu nit ñi waaye yàlla xam na seen xol ndaxte li nit di fonk yàlla sib na ko mbokk yi lii mu ngi am ginnaaw ab jàngale bu am solo bu seydina isa yeesu krista jàngale ci kanamu mbooloo mi ci biir jàngale boobu muy andi seen xel ci ni lu bari loo xam ne àddina daf ko naw lu bari loo xam ne doomu aadama yi da da- dañ ciy daw dañ ciy kërti kërti euh, suba ak ngoon mënoonaa ñàkk bu doon xamoon nañu dëgg-dëgg li am solo ci kanamu yàlla gis ngeen pharisien yi nga xam ne ñu ngi woon foofu di déglu ñoom it waxtaan wala jàngale Seydina Isa boobu ci jamono yooyu ba ñu ko dégloo ba noppi téere bu sell bi nee na dañ ko reetaan dañ ko reetaan ndaxte ñoom lañu gis yépp Seydina Isa Yeesu Krista doon ko jàngale dafa wuute ak lañu doon jàngale ñoom te muy seen bëgg-bëgg lañu doon jàngale ñoom te muy seen bëgg-bëgg te bëgg-bëgg boobu nekk fii ci àddina ba ba ba suñu joñu tey ji mooy ni nit pour ñu ne tekki na dafa war a fekk mu am alal nit pour ñu ne tekki na dafa war a fekk mu yore ay koppar yu bari mu tabax ay étage mu yor ay jabar yu rafet yu bari mu yore ay oto waaw mu dem tukki dem dellu si nit ku mel noonu buñ ko xoolee dañuy ne tekki na nit ku mel noonu buñ ko xoolee dañuy ne war nañ ko jox worma war nañu ko yëkkati war nañ ko defal lii war nañ ko defal lële waaye dëgg dëgg dëgg li ñu téere bu sell bi di xamal mooy ni jamono moo yàqu li ñu téere bu sell bi di xamal mooy ni gis-gisu doomu aadama yi moo lëndëm ndax jëf ju ñaaw ji bàkkaar nekk di ko jëf ci dunduk doomu aadama yàlla sunu borom leer kese la yàlla sunu borom baax kese la yàlla sunu borom lépp lu rafet lépp lu baax lépp lu jekk lépp lu jara naw ci moom la jóge te boo gisee mu jóge ci moom dafa bëgg mu jëm si ci ñun waaw ndaxte lépp lu yàlla sunu borom bind te mu bindee ko ci Seydina Isaa Yeesu Krista li ma ci gën a bëgg mooy ñun doomu aadama te mu nag mu joxe ci firnde gu leer nañ ci yabal ba mu ko yabal ci àddina ci àddina si ngir mu ñëw man ñoo jot ak deretam xam nga bu ngeen seetloo bépp waxtaan boo xam ne waxtaan naa ko fi ak yéen ak ci lu mu mënta doon baat boobu dama koy andi saa su ne ndaxte ñun bu ñu baaxee mbaaxuk Seydina Isaa Yeesu Krista la ñun bu ñu jekkee jekkuk Seydina Yeesu Krista la ñun bu ñu amee amuk Seydina Yeesu Krista la ndaxte téere bu sell bi daf ñuy wax ni ci lu amul benn sikki sàkk ne lépp lu yàlla bind ci kàddoom la ko bindee te kàddug yàlla googu mooy Seydina Isaa Yeesu Krista te la mu bind yépp doomu aadama la ci gën a fonk la koy firndeel ca jamono yooyu mooy la mu bindoon yépp la muy bëri ak la muy jekk ak la muy rafet yépp aadama ak awa la ko dénkoon ndax bëgg ba mu leen bëgg ndax fonk ba mu leen fonk ñu defe woon ni mbëggeel ak cofeelug yàlla munul weesu loolu mu ne aha kay xaar leen rek gisagu leen dara ñu dawal jamono bàkkaar tàbbi ci dundug doomu aadama yàlla sunu borom génnee aadama ak awa àjjana waaye mu wéy di leen toppatoo di nemmeeku doomu aadama jaarale ko ci yonent yi mu leen doon yabal ngir ñu leen di artu ci yoonu mbartal ba ñu jël te bañ ca buñ ci tarxiisee yóbbuwu leen fenn fudul ci safara yàlla di wax ak bani aadama ñu defe na foofum lañ mbëggeel ak yam mu ne déedéet gisagu leen dara ñu dem ba ba àpp ba mu jàppoon jot la may wax du man maa ko wax ci téere bu sell bi laa ko tibbee àpp ba mu jàppoon ba mu jotee mu yabal kàddoom googu nga xam ne ci moom la sàkkee lépp te moo tax mu sàkk lépp muy Seydina Isaa Yeesu Krista mu yabal ko ci àddina ñu defe ne daf ñuy gànne si ngir gën ñoo gindi gën ñoo leeral ci bëgg-bëgguk yàlla yi mu ne déedéet ndaxte li yàlla namm ci doomu aadama wax na leen ko ba noppi yonent yi an wax nañ ko li yàlla bëgg ci doomu aadama yéen xam ngeen ko yonent yi wax nañ ko ba noppi kon li ma andi du loolu waaw li ma andi beneen mission la du loolu waaw kon moom Seydina Isaa Yeesu Krista mu ne ñëwul pour wax ñu ne lii moo baax wala lële moo bon ndegam sax fàttali na ko mais loolu fàttali la ndaxte yonent yi waxoon nañu ko woon beneen mission moo ma andi kon mbokk yi dinañu déglu tuuti cant laata ñuy àggali waxtaan bi ci kàttanug yàlla sunu borom jërëjëf. jërëjëf mbokk yi jërëjëf suñu technicien bi ko ci ñu ngi koy gërëm di ko sant di ñaan yàlla barkeel ko moom ak njabootam kon mbokk yi bu ma dellusee ci waxtaan bi fi ñu taxawoon mooy mission wu Seydina Isa Yeesu Krista mu ne sama mission man mooy ma jotaat leen sama mission man mooy ma génne leen ci bàkkaar yi xam nga nit ku nekk ci biir géej te laata muy dem géej wax nañu ko ne ko géej dafa dangereux géej mën nga cee lab géej dafa bëri problème boo mënul feeyi bu baax peut-être sax yóbbu nañu ko pour mu jàng feeyi booy feeyi nii ak nii ngay def waaye waaja tàbbi ci géej mu tàmbalee lab kooku boo ñëwee waat fekk ko fa muy labee nga naan ko newoon nañ la géej baaxul newoon nañ la géej dafay rey nit newoon nañ la booy lab booy feeyi da ngay jiital loxoy ndeyjoor teg ci bu càmmoñ mais amul benn njëriñ boo continuer di wax waa ji day dee Seydina Isa mu ñëw mu ne wax bi nag leeroon na léegi la def mooy la des mooy jëf génnee leen ci géejug lab ba ngeen nekk te muy sëy muy bàkkaar ndaxte bu ngeen ca deewee sànku ngeen ñu ne ko nan nga leen ciy génne mu ne man damay gàddu seeni bàkkaar damay gàddu seeni ñaawteef damay gàddu seeni jafe-jafe mbugal bi leen waroon a dal ngir seeni bàkkaar dama leen koy gàddul ngir yéen ngeen mën a rëcc mu dee ca bant ba tuur deretam ja deret ju sell soosu di ñu sellal ci suñuy bàkkaar di ñu sellal ci suñuy jëf yu bon kon tey ji lépp lu ñu doon ñun Seydina Isa Yeesu Krista la tey ji bu ñu mënee ràññee bëgg-bëggug yàlla yu sell yi tey ji bu ñu mënee ràññee jëfug yàlla yu baax yi te di ci góorgóorlu du ñun waaye Seydina Isa la Yeesu Krista kon moo tax suñu bépp jàngale dañu ciy fàttali loolu ndaxte li nit ñi soxlaa xam du ne yàlla nee na lii baax na wala lii bon na loolu daanaka doomu aadama yépp xam nañ ko ba noppi même ñi ñu mosu la waar téere bu sell bi di bible bi nee na yàlla moo ñaale na ko ci seen ruu wala bokk ci seen xol xam nañu li baax ak li bon kon li nit ñi war a xam tey ji mooy ne am na ku mën a soppi seen dund ba ñu mën a ràññee ci diggante bëgg-bëgguk àddina yi li am solo ci àddina ak bëgg-bëgguk yàlla yi li am solo ci yàlla ba ñu man cee nekk waaye kooku du kenn nag ku dul Seydina Isa Yeesu Krista waaw ba mu ñëwee gis ngeen ñi muy waxal nii ay pharisien ay kilifa diine lañu dañoo jàng yoonuk yonent yàlla Musaa ba di ko jàngale kon ñii ab wutum xam-xam taxu leen a jóg waaye ba ñu dégloo Seydina Isa Yeesu Krista di jàngale muy jàngale ci oyof muy jàngale ci lewet waaw muy jàngale ni nit danga war a mën a muñ muy jàngale ni danga war a bëgg sa doomu aadama comme yow muy jàngale ni yàlla mbëggeel kese la te mbëggeel boobu ci ñun la ko bëggee muy jàngale ni alalu àddina bu mu la boole ak kenn ñu xool ko reetaan ko waaw loolu la ñu téere bu sell bi wax ñu xool ko reetaan ko ndax lan parce que ñoom dañoo bëggoon xaalis ñoom dañoo bëggoon alal la amoon solo ci ñoom mooy alal la amoon solo ci ñoom mooy xaalis gis ngeen mbokk yi loolu la yàlla sunu boroom di wax ci nitu jamono ji nga xam ne ci lañu nekk waaw mu ne ñooñu dañuy liggéey pour am tur liggéey ñu pour màggal yàlla ñooñu dañuy jëf pour siw jëfuñu pour siwal yàlla ñooñu dañuy def pour mën a fés defuñu pour que yàlla mën a fés dafa am téere bu am solo bu nekk ci bible bi ñu dippee ko timote ñaareelu téere ba du bu njëkk ba waaye ñaareel ba bu ñu ko jàngee ci saar ñett aaya benn ak la ca topp téere bi day wax lii mu ne na nga xam lii bés yu tiis te tar ñu ngi ñëw teeru ci mujjug jamono aha ndaxte nit ñi dinañu siis te fonk xaalis di ñu rëy te yëg seen bopp man xaste te lépp lu ñu def nag xeeb ko duñu déggal waajur amuñu kóllëre selluñu amuñu cofeel duñu dañuy jàpp mer dañuy sos gis ngeen la mu wax ci jamono ji ñu nekk waaw waaye lenn waralu ko lu dul seen fonk xaalis lenn waralu ko lu dul seen bëgg bi ñu bëgg a rëy di yëkkatiku saa su ne seydina isaa nag moo ñëw sellal ñu ñun taalibeem yi moo ñëw soppi suñu dund ñun taalibeem yi moo ñëw dindi suñuy bàkkaar comme na ko yàlla waxe woon ci gémmiñu yonentam ba jamono dina ñëw dinaa dindi xolu doj yi nga xam ne moo nekk ci ci yéen ra de- roof leen xol yu nooy nit yoo xam ne benn bëgg-bëgg rek la ñuy am mooy def samay coobare jamono jooju nag ak sina bi seydina isa yeesu krista ganesee àddina waaw moom moo ñëw sangañu moom moo ñëw sellal ñu moom moo ñëw dindi lépp loo xam ne mu ngi woon ci ñun te mu méngoog bëgg-bëgguk àddina roof ñu bëgg-bëgguk yàlla ak sellaayuk yàlla ga looloo looloo tax ñu wuute de waaw loolu rek mooy wuute bi du leneen loolu rek mooy wuute bi moo tax booy jàng ci téere bu sell bi da ngay dégg yàlla sunu boroom di ci wax ni ndegam nag yàlla defal na leen loolu waaw ndegam man bala konaati maa ngi woon ci àddina si bu njëkk di topp bëgg-bëggu àddina si te àddina si munoo cee tekki munuñu la cee wormaal munuñu la cee jox cër lu dul da ngaa yori koppar waaw munuñu la cee jox kër cër lu dul da ngaa yori kër yu bari wala soxna yu bari wala oto yu bari te rafet àddina ne waa kay kii moom tekki na kon boo nekkee ci lu mel noonu yow it da ngay góorgóorlu pour mën a am ca yooya ak noo ko mënta amee rek amul problème pour yow li am solo mooy nga am ko ngir doomu aadama yi mën laa fonk jox la cër ba nga xam ne moom nga yellool nañu waxante dëgg looloo tax nit jaayum drogue bi bari ci dëkk bi looloo tax njublan yi bari fi looloo tax détournement de fonds yi bari fi looloo tax kenn mënatul wóolu kenn parce que koo dénk sa ñaar dërëm mu lekk ko waaw parce que fa mu dëkk bëgg na fa wone ni moom nii la toll waaw si lo- loolu rek la bu société bi changé woon bu suñu société soppeeku woon ba gis-gisug doomu aadama yi méngoo gis-gisug yàlla sunu borom maanaam ñuy gis ne ki am solo ki jara naw ki jara joxe en exemple mooy kii toppug yàlla di dundu dundug yàlla te di def bëgg-bëggug yàlla yi ñuy yëkkati kooku di nawloo kooku kon it nit ñi dinañu fa bal lañu moom moomul ngir jublu ca lañu moom dëgg la nga xam ne mënuñu koo ñàkk muy jaa- jaamu yàlla topp yàlla ak nekk ci bëgg-bëgguk yàlla yi waaye société bi nag moo mënul soppeeku lu dul ne daa xam Seydina Isa Yeesu Krista ndaxte moom kese moom cundug mooy soppi xolub doomu aadama te doomu aadama yi ñooy société bi kon mbokk yi ñu dégluwaat tuuti cant dellu si waat bu soobee yàlla sunu borom jërëjëf
ياسك بخمم في الباسك ترى خير الله كتير ليعمر الشكر راسك ترى خير الله كتير ليعمر الشكر راسك لا تفكر ولا تتعب منك الله اطلب لا تفكر ولا تتعب مملكة الله اطلب هو يعطيك ما تحتاج ثبت وثق فالرب هو يعطيك ما تحتاج ثبت وثق فالرب
jërëjëf mbokk yi ñu ngi sant borom bi ci cant yooyu nga xam ne moom lañ ko ko jagleen moom lañ ko jagleen te moom rek nag moo ko yellool du keneen kon mbokk mi maa ngi doon wax ni foog société bi soppeeku mais société mooy mooy doomu aadama yi man ak yow ak keneen ak keneen ñun ñooy société bi mais dama ne société bi ngir mu soppeeku mooy que ni ñun dañoo war a soppeeku te ki ñu mën a soppi ñun doomu aadama yi mooy Seydina Isa Yeesu Krista ndaxte liggéey bu rafet boobu moom moo ko def kon bu ñu ñun nag yàlla daf ñu baaxee ci jamono yi ñu toll ñu bokk ci ñi nga xam ni gis nañu loxo bu sell boobu Seydina Isa Yeesu Krista tàllal àddina ba ci kàttanu xel mu sell mi ñu mën a jàpp ci loxo boobu loolu mbaaxug yàlla la du suñu njëriñ te wax naa la ni bu njëkk ñu nit ci société bi la ñu bokkoon ñu nit dañoo bëggoon a tekki te comme pour nga tekki il faut nga am alal ñu nit dañuy wuti alal ngeen defe ne lan moo tax xale yi di jël gaal yi di dugg ci géej gi di dee lan moo tax seen yaay yi di teggi natt di leen jox parce que dañu bëgg seeni doom tekki te ci seen dégg-dégg tekki mooy nga am alal ci seen dégg-dégg tekki mooy nga sol ay yëre yu rafet nga takk ay urus loolu mooy tekki waaw bu jaree sa bakkan sax nga def ko ci waaye tekki ci gis-gisub yàlla sunu boroom mooy nga nekk ci mbirub yàlla yi nga xam yàlla sunu boroom te di ko jaamu ca na mu ko bëggee ca na mu ko neexee loolu mooy tekki tekki du nga yor fii loo xam ne yàgg yàgg yàgg yàgg téeméeri at nga bàyyi ko fi de bàyyi dem sa yoon loolu du tekki ki tekki dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne mu ngeeg loo xam ne àddina ak alaaxira du ko ñàkk kookoo tekki ci gis-gisu yàlla waaye mais loolu nag nga xam ne danga koy yor àddina yor ko àllaaxira mënoo ko ñàkk mooy mucc gi nga xam ne yàlla waajal na la ko te mu jaarale ko ci Seydina Isa Yeesu Krista jéemal sukkal say oom nga tàllal yàlla sunu boroom say loxo nga ne ko gëm naa ni Seydina Isa Yeesu Krista ci yow la jóge yaa ko yebal gëm naa ni dee na ci bant bi ngir samay bàkkaar gëm naa ni dekki na ngir ma mën a dund dund bi nga xam ne moom lay moom lay dund moom ci boppam maa ngi la koy wax boo ko defee te muy dëggu lu dëggu ci sa dund di nga gis di nga gis ni la yàlla di soppee di di nga di nga ma woo téléphone nga ne ma pasteur kenn du yàlla kenn du yàlla parce que la mu la wax loo nga wax ko gis naa ko ci sama biir dund di nga gis ni yàlla di soppee sa gis-gis ci àddina si di nga gis ni yàlla di soppee sa bëgg-bëgg ci àddina si di nga gis day mel ni yàlla daf la génnee ci bërëb tàbbal la ci beneen bërëb boo xoolee la ngay gisati day wuute complètement ak la nga doon gis bu njëkk jéemal doo ko rëccu donc alors Seydina Isa ñëw soppee ñu noonu looloo tax yàlla sunu borom di ñu wax ñun taalibe Seydina Isa yi ne ndëgam yàlla def na loolu pour yéen ndëgam yàlla jaar na foofu ak yéen ñu ngi leen di maa ngi leen di ñaax maa ngi leen di woo ci ngeen jébbal seen yaram bépp yi waaw bataaxal bi ñu dippee Rom saar fukk ak ñaar aaya benn ak benn ak ñaar waaw jëbbal leen seen bopp yàlla jëbbal leen seen yaram yàlla ni sarax suy dund waaw ni sarax suy dund xam nga lan moo tax léegi yàlla bëgg ñu jëbbal ko suñu bopp alors que bu njëkk waxul loolu waaw laatam bu njëkk yàlla waxuma jébbal ma sa bopp ni sarax suy dund léegi yàlla daf koy wax parce que sama yaram ci kaw ba ci suuf Seydina Isa sellal na ko léegi doon naa jumtukaay bu sell boo xam ne yàlla mën na ko jëriñoo ci béy bi mu nekk di béy ci àddina si pour ji fi saxal fi ay meññeef yoo xam ne dañuy màggal turam te du kenn nag ku dul doomu aadama yi mu sàkk mu ngi noonu léegi nag ndegam nangu naa Seydina Isa yàlla sellal na ma bàkkaar ya deñ na ñaawteef ya deñ na doon naa nag jumtukaay ju sell yàlla mu ne léegi nag man nga maa jébbal sa bopp ni sarax suy dund waaw ngir ma man la jëriñoo waaw ma jëriñoo la ci doomu aadama yi man laa gis nga wuute na nga meloon démb Seydina Isa mu ne taalibeem ya looloo tax ñu naan yéen yéenay leeruk àddina si bu njëkk lëndëm ngeen woon léegi leer ngeen looloo tax ñu ne yéenay leeruk àddina si ndaxte léegi doon ngeen ay jumtukaay ci loxoy yàlla sunu borom yoo xam ne daf koy jëriñoo ngir màggal turam ci àddina si waaw bu leen àddina jay waaw wala boog bu leen niroo ak àddina waaw waaye wut leen bëgg-bëgg yàlla yu sell yi waaw alal lu baax la kenn werantewu ko man de waxuma contraire lu baax la waaye na nga ko amee ca na mu gën a daganee na nga ko amee ca na mu gën a rafetee na nga ko amee ca na mu gën a jaadoo te boo ko amee ba noppi nag na nga ko am ngir yàlla te bañ ko am ngir sa bopp waaw xam nga ki nekk ci àddina si te li tubaab di woowe système de valeur c'est-à-dire moom mu ngi ci àddina si waaye dafa am lu am solo ci biir àddina si kooku li am solo mooy alal mais li tax muy wut alal bi pour fésal boppam la pour wane boppam la pour nit ñi gis ko la pour nit ñi naw ko pour nit ñi màggal ko waaye ki nga xam ne mu ngi ci système de valeuruk yàlla kooku li am valeur ci moom maanaam li am solo ci gis-gisam daa soppeeku léegi day liggéey day daan dooleem day wut xaalis comme ñëpp parce que dafa war a yor boppam yor njabootam te dimbali néew ji doole ji loolu la yàlla sunu borom nam ma ci moom waaye léegi comme moom gis-gisam soppeeku na alal ba mu yore kër ya mu yore oto ya mu yore xam-xam ba mu yore dootul léegi pour fésal boppam pour nit ñi yëkkati ko pour nit ñi naw ko waaye léegi day doon lampe day doon leer day doon projecteur boo xam ne da koy ne rey ci yàlla sunu borom ngir nit ñi gis yàlla sunu borom te di ko màggal ndaxte moom rek a jara màggal gis ngeen soppeeku boobu bu njëkk dama doon wut alal pour nit ñi gis ma bu njëkk dama doon def pour nit ñi tagg ma nit ñi ne ah kii baax na yii kii tawe na kii lu mu am bokk koog doomu aadama yi alalam du ko boole kenn waaye léegi dama koy def pour que bu ko nit ñi gisee ñu ne ci yàlla sunu borom aka man xoolal ni mu soppee pasteur Konaté xoolal yàlla liggéey bu rafet bi mu def ci dundu pasteur Konaté xoolal démb pasteur Konaté nii la meloon xoolal tey ni mu mel yàlla daal mooy kenn waaw loolu laa ci bëgg léegi loolu mooy bëgg-bëgg yàlla yu sell yi ngir nit ñi di màggal yàlla waaye ñu bañ maa màggal waaye xool leen ci suñu biir société bi xool leen ñi am alal di ko joxe ndax yàlla lañ ci bëgg a màggal wala seen bopp la ñuy màggal yàlla lañ ciy màggal kon mbokk yi dinaa tënk fii waxtaan bi dinaa tënk fii waxtaan bi waxtaan bu am solo la waxtaan bu jara xóotal la waaye dinañu ko tënk fii ndaxte lépp nag man la koy fàttaliwaat fondement bi Seydina Isa Yesu Krista la moom mooy soppi gis-gis yi moom mooy soppi système de valeur yi moom mooy tax li am solo dëgg-dëgg ñu xam ko te ñu koy jëfe kon maa ngi lay ñaax maa ngi lay ñaan te da te te damay ñaan yàlla mu gane si la ci sa biir dund mu gën laa leeralal mbir yi ngir nga man ko ràññee ba ba ba nga dugg ci nga nga nga jébbal sa dund Seydina Isa Yesu Krista ni ma ko waxee di nga ma woowaat fii téléphone ne ma pasteur la nga la yàlla wax loo woon te nga wax ko gis naa ko kon cant ak ngërëm ñeel na yàlla sunu borom. kon man ngeen wéy di ñu déglu man ngeen wéy di ñu déglu ci suñu émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi yéen ñi nga xam ne xarañ ngeen ci xarala yu bees yi maanaam loolu ñuy woowee internet am nañu am nañu adresse ah am nañu site web ah man ngeen cee dugg ah www point kàddu gu sell gi point com ah man ngeen ñeewoo aussi ci téléphone 77 074 35 35. 77 074 35 35 bu ngeen ko bu ngeen ci wootee ak lépp lu mënta doon seen soxla te mu jëm ci kàddug yàlla ji rek bu soobee yàlla dinañ ci taxaw kon ñu ngi ñaan yàlla gërëm yërëm ñu ñu ngi ñaan jàmm ak yërmandeeg yàlla wàcc ci dund kenn ku nekk te jàmm fees del ci réew mi nga xam ni mooy sunu bos di Sénégal jërëjëf mbokk mi.
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
إن